wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 bu wér nee di gërëmati sëriñ Saliou bu wér nee na jërëjëfati Serigne Saliou nee na mi ngi gërëm sangam soppeem seen Seynou Kane borom xalima gi nee mi ngi koy gërëm bu wér a wér nee na ndax ngir jëmmi Serigne Saliou rek. nee na nee na mi ngi rafet lu jotaay bi loolu macha allah nee na mi ngi ñaanal sëriñ bi yàlla may ko wér may ko gudd fan nee ndax bu ko fi yàlla bàyyee nee na suñu njëriñ képp la wér na nee ak yokkute képp la wér na nee na kon sëriñ bi soxna si mi ngi lay xamal ni sa bés bii nee na daa bàyyi lépp ngir yow nee ndax sëriñ Saliou nee na moom sëriñ Saliou rek la bëgg nee daa am lu leen boole. muy Serigne Saliou nee na kon moom mi ngi ñaan nee na ndam rek ci barkeb sëriñ Saliou nee na mi ngi nuyu ñëpp nag nee na képp ku fi toog rek mi ngi lay béggee te di la ci barkeb sëriñ Saliou nee na bu wax bi guddee nee na mi ngi jéggalu guddul de nee na mi ngi sant bu wér nee na jërëjëf ah soxna si kàddu rafet na am na solo lool. sëñ Xaadim xam na li may wax. tey jii barkeb Serigne Saliou ku tab ji laa rawatina waxtu wii ndax tey programme yi dama ne woon tàkkusaan gi moom sëñ Ousseynou rekk ko moom ba sax dama ko estati guddi gi ma am ñeneen ñu ma ko joxoon yàlla def programme yi changé sëñ Ousseynou far jël tàkkusaan gi guddi gi waaye la ma waxoon keroog rek sëriñ Saliou mi ñu bokk. ca foo toll di ko joxoñ di ko wane dañoo boole ca bokkoon na ci lim ñu doon gën a tere muy kóllëre ñu fowe ko loolu sax a tax waykat ba naan kóllëre nam ko sàmme woon fonk ko day lu yéeme woon nit la ko ñëpp ràññe woon nam ca meloon daa jafe woon ca sang ya nee na sëñ Saliou ni mu jàppe woon ak kóllëre ak ni ci mel nee na néew na kilifa gooy digg mu mel mu mel noonu ci kóllëre loolu mën naa cee joxe ñaari misaal benn bi sëñ Ousseynou sa sang ba këram gii ci xay gi dafa amoon garabu niim gu rëy gu fi nekkoon yàgg na ñu yàgg moom xam na niim ga sëñ Saali da doon wax ni yor naa ci kër gi ñaari garab yoo xam ne gërëm naa leen ñu ni ko mbàkke ban ak ban mu ni niim ge xay gi dal ni xay gi li tax ma gërëm ko mooy ñiy defar jumaa ji suñu yéegee ci sooroor bi ma ne sama biir kër gi xay gi mooy doon sama kiiraay ba duñ ma séen kon gërëm naa ko dal niim gi li tax ma gërëm ko mooy ba fi genn garab nekkutoon moo fi nekk di ma keral kon gërëm naa ko garabu niim gi nag ba mu fi yàggee sëñ bi dem ba bëgg mu jóge fi mu nekk mu xëy benn bis jóge xàbbaan rek ni nan dindi garab gi gaa ñi takkaayu dindi jël xàpp yi di waat ngir gor ko ba dee ba di ko gor sëñ bi taxu daal ni hum taxaw leen ñu taxaw mu ni sàllaaw de su demee ba yeneen garab ne fi ñu dindi ko day mel ni dañ ko war ba fi génn garab nekkutoon moo fi nekk kon dañ ko fi baax ma xalaat ba benn bi sëñ Saliou woote dal ni garab gi de daa mel ni damay gis ni daa ami doom ñu ni ko waaw mu ni doom yi fexe leen ba jëmbat ko ba xam dina sax ñu jëmbat ko mu doon lu toll fukki garab ak juróom-ñett mu ni ginnaaw garab yi jàpp na dem leen njurul ngeen jëmbatal ma doomi garab yi maanaam doom yi nga xam ni moom la meññ ba garab yi dëgër ngeen jëmbatal ma ca penc ma ak biir kër ga su leen wóoree ne garab yi rëcc na ngeen doog a buddi gii ñu doog a feddali kóllëre garab gii ak yooyu yee ma def njurul garab yam def njurul ba dee ba matti garab mu wóor ko nii rëcc nan sëñ bi doog ni nan déjjite gii nag ndax meññal na nu yeneen garab yu koy xoolee dafa nga ni koo xam ne da ngay sàmm bay sàmm sa diggante ko garab beneen bi nag ay mbaam yi sëf la mbaam yi ñu takk sare xam ngeen ni njurul gu njëkk ga sëñ Saliou ay mbaam la doon bàyyee ba benn bis mu fay dikk gis gone yi war mbaam yi di dóor dóor gi métti di course sañ bi ñëw daan ni sàllaaw de mbaam yi nii ñu leen di lore di dóor ñuy daw ak naaj bu tàng bi dama koy yëg sama yaram bu leen kenn takkati bu leen kenn dóorati daan ni nañ dem Saalum wut fa ay tiir tiir mooy nag sëñ Seyni moom xam na tiir bu baax moom daan ni tiir yi su ngeen leen andiyee ngeen tàggat leen ba nu nangu ñoo ëpp kàttan mbaam yi ci ngeen teg leen fi déglu ma ñu wul li mbaam yi ban mu ne naa mbaam yi gin nag yi mokk nañu nañ leen wutal ay machine daal di fay ñëw daal ni mbaam yi ku naan Issa Diouf lagan la nekk léegi daal ni ko dem leen Touba ngeen xoolal ma fa luy fan fanweeri mag yoo xam ne sonn na néew na doole kenn ku nekk ngeen jox ko ñaari mbaam ni ko mag ko dimbalee mbaam bi jiital nañ leen ñu daan di lu mat ñeenti kilomètre jàpp juróom waaye dañoo jékki-jékki rek mbaam yi ngaaxandoo ñoom ñëpp dëpp daw di kat fekk sëñ bi daal di sëñ bi génn ci penc bi daal di danoo dëpp ñu ni waaw mu ni kon bàyyi leen leen fi du ma njëkk feddali sama kóllëre ak ñoom ñoom kat daa mel ne ci man te kenn du ñàkk a ci sa Saliou Saliou du doyal ci yow waaye la gën a yéeme du bàyyi gam fa bàyyi mbaam yi daf leen faa ba daan bu leen leen war bu leen leen duur nañ leen fi ba noon rek mbaam yi di lekk kanaan ak ruur ci tool yi di màgget di faatu par benn ba jeex tàkk ba mat fanweeri at sëñ bi dikk fa benn bis nam daan def par tàkkusaan bay doxantu doxantu ba ci penc bi mu daan ni sama xel di daa nekk ci sama mbaam ya ku xam lim ba ñaata la ñu ne ko Mbàkke matoon nanu ñeen fukk ak ñett mu génn xaalis bu bari na nan dem Touba jënd mbaam yi ni toll andi leen ci daara ji ma faddilee ko sama kóllëre mbaam yi jot ya kon li wax kóllëre amul kenn ku ci raw sa waaja moo tax ma ni màggal gii ngay gis dafa bari lu ko waral tey bi tollee ci yor yor ñu lakk xar saaf ginaar yi defar mburu yi lépp na mat ñun ñëpp ñuy bég di dund ni tey la màggal jamono joojee ñuy noose ñun jamono jooju ba ci sëñ Tuubaa di ma ngay jaabante moom ca diggante këram ga ak pénc ma woolu maam Cerno yëf yi métti lool muy waaj moom ci tukkeem ba ak nattu ya ca ñu koy waajal ngir lan ngir rek ba kanam dàqali ko jëmmam ja mu woolu Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadil woolu maam Cerno xamal ko ne ko ñoom ñëpp a say loxo jël loxoom bu tedd ba teg ci loxoom ci seen bopp ya ni leen dénk naa leen yàlla ak seen baay Cerno jamono joojee consultance bi mu tolloon moom ñu koy waajal ngir sànq ko mu toll ci xat-xat yu tar ñun ban ciy toll tey jii ca bis boobee ba mu dellu see tey ñun dañ doon noos sëriñ bi defal na ko ay bernde te loolu yëkkati dugal ko sa biir gémmiñ mu defal na ko tiyaaba ca moom ba mu ci toll moom ñu koy waajal di ko yóbbu di ko teg ay natt mennum sëñ Tuubaa yi ngay gis ci taarix too xam ne at mi la jël di la teg ay nattu at moomu ba mu dellusee see te jamono jën doon teg nattu ya ca bis ba nga doon waajee génn sa kër nga ni saa su dikkatee def leen ay bernde di tedd su ko neexoon ne dee leen ko woor daa mitti woon su ko neexoon ñu teg ñu lañ teg waa Iran ndax bis ba ñu rey ba ñu ba ñu fi jëlee Seydina Ousseynou chiha yi saa su dikkee lu mat juróom benn téeméer danañ fa faatu ndax dañuy dóor seen bopp ak di jëm seen bopp waaye melum sëñ Tuubaa rek ngay gis ba ba natt yi dikkee moom sëñ Tuubaa mu waaj daan ni bis bi kat maa ngi dem liggéeyali saa borom waaye saa su dellu see yéen ngeen ko def fet di togg di jëfandiku di bég di ma santere saa borom saa borom di leen fay loolu amul lenn lu mel ni moom waaye nee na ba muy waaj di dem dafa yor ñaari mbubb ñaari mbubb benn mbubb bi mbubb jaayante ak boromam la beneen mbubb bi doon mbubb liggéeyal suñu borom ci mbindéef yi keroog ba muy dem ci géej gi mbubbum jaayante ak boromam la wékki sol ko mbubbum taxoon mbindéef yi xettali leen ndox seen diggante ak sawara xettali leen àdduna ak alaaxira mbubb moom da ko wékki daal ni comme jot la tal gaa yu bari ku dikk natt ko mu ëpp la ku dikk natt ko mu ëpp la waaye sa ngub sëriñ yow soy lu borom nattal bii ma jàkkaar lool moo ni ko secc dugg ko ëpp yéesut ma ba moom jëmmi sëñ Saliou Serigne Touba yëkkati ko ci kaw góor yàlla yi daan ne mbubb mi nga xam ne moo taxoon ma bàyyee ko Mbàkke Kajoor dem dëkk bi ma gënee adduna di Mbàkke Bawal jóge fa dem sañ ci Daaru Salaam am fa ñaari at dikk Touba am fa fukki at ak juróom waa jël ma liggéey bi ngir may dem mooy mbubb mu taxoon mu naan rabbi asxaabaka bil himma wala turabi bi dars faqat mbubb moomee kat kenn rek la jot muy Seydina Serigne Saliou. gis nga Serigne bi foo toll dégg baat bi mu naan alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant saa ci ban dugalee ci sama nopp bi màggal gi doxut neexut ma góorgóorlu ban ni ma neex na dox na xoolal sëñ Saliou ni mu dooni sëñ Touba ba noppi gën a bëgg ñëpp sëñ Touba moo tax genn waaye def maa mosalaat ñi ma yéen dongoy sëñ lan moo tax ngeen dëgër bopp ma ne ko dëgëroon bopp la ñu sëñ Saliou doon may lañ gisatut ko koy maye ma ne ko sëñ Saliou daana jotaay ak ay dongoom sax daan ni jotaay bi damaa bëgg mu murite nu waaye jekkoo toogaay bi toogel noonu loolu foo koy dégg tey nga xam da ngay gis ku mel ni sëñ Seynu dikk wéeru ci kawam ba nelaw am koo xam ne tànk bi la koy gàll waaye lu nu ko sab sab sab sab sab sëñ bi danaan sat law di lu ngeen mën a def baax na waaye fexe leen ba bu leen ma daaneel rek barke borom Tuubaa nii ginaar di def suy ngelaw wala muy taw sëñ Saliou daan naa ko gis mu koy def ak ay dongom mooy mu sedd guy sëñ bi ni nii firee ko ak daraam goney dugg ci biir mu téye kaamil alxuraan baa mu téye kurusam di werd fu sa toog ci biir këram tout tànk yaa ngi ca gronam sëñ Saliou di yeete mbaa muy joxe ñam ràññee ko lool ca sang ya mësuta jóg ci suñu biir guddeeg bëccëg bi teeki biir borom xel ko daal làquwaay moo ngi riir ci xol yi wër na sang ya dal gaa defal yoonu murit duñ gis mu jàq mbaa bu tiit moo tax ma naa cey bi la njiit kemam desul ca sang ya mu ñam ma simmalu na suuf ngarom gu rëy garaw ko fuuf woyof ba daana toog ci suuf ca faw woon ca sang ya sëñ Saliou kóllëre nam ko sàmme woon fonk ko day lu yéeme woon nit la ko ñëpp ràññe woon daa jafe woon ca sang ya ak mbokk yi nam ca meloon attel ca lépp raw la xel naa noppi yàlla mii ko jël moo xam meloom ca sang ya sëñ Saliou daal ku bëgg lim ay melokaan yéen ci moom sa xel may paan te xoon a jàng alxuraan ba ca xeeti sang ya ñu laaj ma ni ma kañ la gën ma ni bis ba mu feeñ jamono bis ba mu feeñ ñu tudde ko saalihu ñëpp dégg ko Cheikh Bamba fab ko ràng ko ngëne li ngën gi sang ya boobee la attana bi yanam te mës ta ñàkk jëm kanam boo leeg di topp ay magam ba toogee ngeen gi sang ya bur yàlla fal ko fii samaan sëñ Saliou di atte su ak asamaan te musta bàkku bul iñaan moom sa meloon na sang ya nattoo ki tiis ya gën a ñaaw sëñ Saliou daana ko fekki diir bu gaaw kiiraay guree ga dem na daaw daa fekki ngeen gi sang ya sëñ Seynu yàlla na taxawaay bi yàgg yàlla na sunu borom wéral la yàlla na sunu borom yàggal la kontaan nañu lool ci ñëw gën fi ñëw fekk la fi fekk fii it sa yi nga àndal yanjaay bi ak ñi ñuy dunde màggal gi kon ñoo ngi ñaan ci barke alquran di ñaan ci barke borom nataal bii ñu jàkkaar lool nga xam ne damay faral di wax ni baatub dooñu réer duñ la réer ku ko waxal sëb sëriñ yaa ko ko waxal ko ko waaye waxulu waa ji nag moo ko waxal boppam dooñu réer duñ la réer ku ko waxal sëb sëriñ danga ko ko yéene waaye waa ji moo ko waxal boppam sangub sañu saynu su ma leen jiitoo taxaw nég leen su ma leen négee nag dikkoo leen ma dëpp gàttandu leen